xawma ku Covid 19 coronavirus jommalul waaye jaaykatu ginaar yi nekk ci dëkk bu sell bii di Touba moom bokkuñu ci ne ñoom ay jafe-jafe yu méttee metti la leen jural seeni ginaar jaratul neeni ginaar yi it waxi nopp. li nu fi dajale tey jii nag mooy am solo loo xam ne buñ ci teel ta wax fa jëm ak ñun xamunu ko ñun ñëpp ci élevage la ñuy mbolo mi ëpp na lii au moins man na 200 personnes ku ci nekk sa emploi man na 5 personnes yooyu liggéeyloo kon nga xam ne entreprise bu mag lan yor boo xam ne au moins buñ ko kiiyee totalé li muy liggéey mën na 2000 personnes kon loolu bu fayitee musiba la ca commencé naa fayit ndax li ko waral mooy suñuy ganaar yu nu dugal ku nekk xam ne ne événement Kazu Rajab Touba bokk ko kenn seen ñin dugaloon Kazu Rajab kenn mënut a jaay seeni i ganaar ñii seen i ganaar mat na mën ko jaay ganar yi deena ñi ray rey nañ dugal ci consulateur yi ñi dem nañ wanter seen ganar yin duggalon pour préparer musi gis nga dar musi amatu la leen dal ci kasse radio mo leen dalaat yin duggalon ngir màggalu seigne soye bu loolu moo nu dal motax problème bi am Sénégal ñun wa Touba ñoo ci metti a rawati rawatina ñun éleveur Touba ñoo ci gëna metti mettile ñun nak dañuy ñaan ndimbal état motax nu dajalo ñew ci Abdou Lahad Daga député moom it muy éleveur bu mag ci dëkk bi biñ ko ko waxee mu sawar ci lool lool lool lool dem na wër na poulailler yi gis na poulailler yi xam na li ñuy jànkonteel xam na lépp mu ne ah lii kat balaa dara xew nañ ci teel a wax léegi moo tax ñu ñëwoon këram doon ci waxtaan ak moom ca nit ñoo ngi ñaan état mu gën noo jàpp lu mu gën a gaaw moo nu gënal. sàkku saafara ci seen i jàmbat taxoon nu def délégation seet si honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga mi nga xam ne moom it dafa yari ginaar mu yëkkati ay kàddu di sàkku ci nguurug Sénégal ak banque yi nu yëwanal leen seen i jafe-jafe. Euh, dañoo doon ay ndaw yoo xam ne dañoo ne ci dëkk bi di yëngu ci wàllu élevage surtout li jëm ci wàllu ginaar yi muy ginaar. yi nga xam ne moom la ñuy wax serre te di ñi di ko jëfandikoo ci kër yi ak yi nga xam ne moom la ñuy wax pondos te ñi am nen ni nit ñi di ko jëfandikoo ñu toll ci situation boo xam ne bu doy waar la parce que actuellement nii euh, jafe-jafe yi xew ci réew mi feebar bi xew muy corona bi indi na problème bu rëy parce que tax na liggéeykat yi nga xam ne dañ doon liggéey moo xam fast food yi la moo xam mayga yi moo xam yeneen liggéeyatuñu bu dee ci wàllu Euh, ginaar yi amatuñ kuñ ko jaay nen yi amatuñ kuñ ko jaay ñenn ñi leb nañ ci banque yi am jafe-jafe ak banques yi ñenn ñi dañoo leboon seeni kilifa ay xaalis dugal ci ñenn ñi dañoo jaay seeni matériel def ci ku ma dem loolu la ma wax léegi nag euh, tey mënatuñoo liggéey ñu ngi ci jafe-jafe te ginaar bu xasee paase mat rek waxtu bi mate bu xasee paase rek bi set day tegal ndax da nga koy jox compte te compte boobu ba fii may wax yow wàññeeguñu te lu yoon la actuellement usines yi liggéey ci wàllu xont boobu ñu wàññi ko ba euh, wàññi njëg gi ba nit ñi seen liggéey yi ñu ci defoon man ci génn ñu wax président de la république ne ko ñooñu ñu mat a dimbali lañ muy ñun ñii nga xam ne Touba lañ nekk te loolu ci la ñuy liggéey mat nañoo jàppale taxawuñu ba ñu génn ci situation yi parce que ay ñoo xam ne emploi bi yëpp dëgg bu ñu xoolee poulailler def nañ mat na 1500 quelques wala 2000 personnes loolu du caaxaan. kon nag euh, baax na ñu wax ministre élevage mu ñëw xool suñu jafe-jafe yi ñu dund ñëw gën ñoo jàppale. xam nañ ne taxawaay bi mu taxaw Sénégal lu baax la ñu ngi ko ci félicité mais dañoo bëgg mu ñëw xool ñun li nga xam ne waa Touba moom la ñu def te parce que xam naa ne bu ñëwee danañu jàppale ñu ñaan président de la République mooy yooyu nga xam ne dakoo génne. pour di ko jàppale àddina bi ci Sénégal ci jafe-jafe yi mu boole ci ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu élevage surtout ñu dekk Touba parce que jafe-jafe bu mag moo fi am. fi mu toll nii bu ñu xoolee programme bi yëpp yëpp yëpp ñi nga xam ne ñoo ci amagul lu ñu gàtt gàtt jàpp nañ ne danañ ci perte quatre cent et quelques millions. gëm nañ ne àgg na fa ndax fi may wax yow nii ginaar yi kenn jënd ko mi ngi tege ñu ngi na di xont. amuñu chambre de foire buñ ko denc amuñu fenn fuñ ko yóbbu loolu jafe-jafe la ci dëkk bi ñu ngi ñaan président de la mu mesure yooyu mu jël pour Sénégal mu bàyyi ñu ci xel gën ñu cee dugal bañ gën ñu cee jàppale. waa banques yi moom nañ dimbale nit ñi ak li nga xam ne mooy li ñu war a fay mu may leen euh, trois mois ba 4 mois bu ko defee nit ñi mën a taxaw mën a continuer seen i liggéey te duñ dàq ñi fa nekkoon ñu mën a xool naka la def état bi dimbale dimbale ñu parce que ginaar yi moom ak nen yii nga xam ne moo fi nekk bu leen état bi dimbalewul moom lu ñu sànni ji ca mbalit ma lay doon. moo ne fii ci Touba du jaaykatu ginaar yi kese ñoo am ay gàllankoor te Covid 19 jur ko ne photographe yi ñu ngi jooy wàllu.